motivé mooy rek accompagner suñu candidat président Macky Sall bi nga xam ne bii mooy état bu Pikine bi état bu banlieue bi état bi nga xam ne moo gën a parce que banlieue bi ñëpp xam nañu dafay peser ci élection surtout au niveau de Dakar de la région de Dakar banlieue am électorat bu mag donc ñu def accueil rek accueil pour son excellence le président Macky Sall ñaanal ko yàlla mu am deuxième mandat bu sedd guy au premier tour dañu bëgg nag mobiliser wu de telle sorte que rek bureau de vote yëpp moo fa moo majoritaire waaw loolu lañu bëgg incha allahu rabbi waaw mën naa ne sax commencé nañ ko comprendre parce que son excellence président Macky Sall tey ce matin à 9h dafa nekkoon euh, arène nationale convié foofu jeunes yi yëpp pour ñëw mu waxtaan ak ñoom diisoo ñoom ci projet bi nga xam ne nii am na ko pour banlieue pour Pikine te bi mu leen expliqué affaire projet bi ni mu demee ñoom comprendre nañ ne son excellence lépp lu muy def dañuy jiital waa Pikine particulièrement département de Pikine muy la banlieue en général donc mu ngi accompagné woon ak professeur bu mag mu ñuy wax professeur Daouda Ndiaye nekk un un professeur éminent nekk médecin nekk euh, en parasitologie nekk professeur bu mag université de Dakar donc kooku nekk doomu banlieue ñu mu accompagné ko ñu ñëw waxtaan ak jeunes yi wax leen ne waa Pikine dañu war a gëm seen bopp dañu war a seen bopp dañu war a toppatoo yi nga xam ne ñooy jàng ñu toppatoo seen jàng parce que ci seen jàng ci lañ mën a réussir ci lañ mën a defaree seen avenir ak seen avenir u njaboot donc mu doon nekk boo xam ne affaire bu nice la ba pare wax na fa ay projet yu am wax na rek projet yooyu yu am solo la muy ay projet yu bees comme centre de formation professionnelle boo xam ne daf ko jagleel jeunesse bi nga xam ne dinañ jeunesse bi dinañ ci mën a formé wu pour ñi nga xam ne ni peut-être dañuy teel a bàyyi école ñu dafa leen ay formation de métier yoo lu mel ne kay ay affaire ay affaire euh, plombier affaire ouvrier affaire mécanique ak yeneen ak yeneen i domaine donc loolu mu doon loo xam ne ne ay affaire yu am solo la pour jeunes yi donc loolu amul woon mu doon une nouveauté dafay ñëw yokk si li nga xam ne ni projet bi nga xam ne nii mo euh, réalisation yi nga xam def na ko à Pikine ñëpp gis nañ ko grande mosquée bi mu ngi fii à côté arène nationale bi mu ngi fii donc loolu yëpp mu jagleel ko waa Pikine defar defaral ñu sunu tali yi deux voies yi defar na ko te national bi aussi da koy defar xeex na inondation yi au niveau de Thiaroye au niveau de Diamaguène euh, defal leen ay tali yu baax nga xam ne ni inondation dootuñu ko déggati fii ci Sénégal donc mu doon ay affaires yu am solo yoo xam ne ni président jagleel na ko waa Pikine te loolu doyul aussi nee na dina leen dollil yeneen ak yeneen incha allah waaw euh, président moom lu mu woote rek ñun dañ ci nekk ñun ba ñu sañoon élection yi ci jàmm lay am mu dërëlewu ci jàmm ni ñu dem voté yi ci jàmm ñi bisiwaat ci jàmm moom bañ a am benn problème incha allah donc euh, ñu ngi ñaan sénégalais yëpp bu jour bu vote ba jotee ñu dem voté ji comme ni ñu ko daan defee normalement parce que Sénégal nekk na un pays démocratique bi nga xam ne nii yàgg nañ di voté te musul am problème donc nit ñi nañ dem voté ji xëy suba soo seen yére yu rafet dem voté après ñibbisiwaat dem seen kër mu ngoonee incha allah ñu savourer la victoire au premier tour incha allah. ñoo ngi xaar incha allah dimanche jàmm ñun daal ñoo ngi xaar dimanche jàmm incha allah dimanche midi soobee lépp dina leer midi su 8h rek lañ leen may incha allah ba yegg ci Macky Sall na premier tour fii ci Pikine Nord incha allah. waaw man maa man maa ngi tudd man c'est la première fois ma ñëw ànd président man PDS laa nekkoon man maa ñu jógee PDS ñëw rallier si fekk si waa Benno Bokk Yaakaar ah gis liggéeyu président Macky saal li mu liggéey ci réew ak li nga xam ne lii looloo def pour Sénégal yi yëpp loolu tax ñun fa ñu nekkoon ñu bàyyi ko ñëw ngir jàppale ko ci liggéey bi ñun ak suñuy maa ngi ànd ak directeur cabinet monsieur le maire Amadou Diarra Iba Dieng ñun ñoo ànd ñëw bokk si ci président Macky Sall bi ñu liggéey pour pour Sénégal yëpp ndax président Macky Sall lu na fa moom kenn du ko jeex macha allah amul domaine booy laal te du ci teg loxoom kon ñun bu ñu goree dañuy xam ne Sénégal moo ñu ñor te moom Sénégal moo koy moo tax ñu bàyyi li ñu nekk lu mës a am Pikine Nord dina ko am ndax ñun ñu ñoo fi nekkoon nekk opposition di gagné ñun ñëw nañu ànd jàpp ci liggéey bi ànd ak suñuy frère ak suñuy sœur macha allah kon soir de 24 beneen tendance na am lu bees ne incha allah loolu moom na ci ànd ak xel mu def Pikine moom tout avec Macky Sall allah